président Ousmane Sonko. merci beaucoup asalaamualeykum mbokki Louga dafa mel ni Louga fawoon nawoon ndax depuis élection présidentielle ba tey jii muy juróomi élection ñu tegle saa suñu ñëwee Louga teranga guddi mel lañ fi fekk kon euh, mortala nit nit waa Louga bu ma leen ko waxee ak bu ma leen ko waxul it xam ngeen Louga mu féete ci man c'est-à-dire cofeel ak affection bi ma am ci dëkk bu tedd bi dëkku jàmbaar dëkku liggéey bi nga xam ne mooy Louga maa ngi nuyu kilifa diine dëkk bi yëpp ndax ku wax Louga nag wax diine maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp di dellu di rafet bu waat seen taxawaay ci jamono yi nga xam ne mbir mi métti woon na ci di ñu ñaanal ak di ñu encouragé mbokki Louga tey lañu dugg ci li ñu wooyee pôle Njàmbur Bawol mu dajale ñaari région di région Louga ak région Diourbel muy à l'image de tous muy pôle bu am solo xam ngeen pôle bu nekk rek dafa am benn bu mag buñ fay def ci pôle bi bu soobee yàlla gannaaw ëllëg te dimanche dañuy def meeting ba ci Mbàkke te xam naa ni lu bëri ci yéen ko teewee si waaye jaar gi ñu jaar Louga gannaaw bi confirmé ni le défi des caravanes sans être waaye dafa mel ni Louga tebbi na defi caravane bi. li ciy féliciter toute la jeunesse de Louga di ci féliciter mag yi ak jigéen ñi waaye di ci féliciter également toute la coordination toutes les coordinations réunies sections yi cellules yi parce que Pasteur est un parti organisé structuré mais surtout un parti boo xam ne waaye doonte meeting bi Mbàkke am dinaa jiit ci ñetti poñ rek yu gàtt yoo xam ne mënuma koo bañ a wax fii ci Louga poñ bi ci njëkk mooy lu jëm ci émigration ndax dafa bokk ci dëkk woo xam ne dañ ko ràññee ci une forte population d'émigrés ay nit ñu jàmbaar ñu am fulla ñu am jom génn réew mi pour dem daan seen doole te lu ñu am suba ngoon ñu koy séddoog waa réew mi ma profité ci rendre leen hommage au-delà des émigrés de Louga à tous les émigrés du Sénégal nga xam ne bu dul woon ñoom boo moytuwul mbir suux na bu yàgg ndax les transferts yi nga xam ne émigré dañ koy def ñu ne léegi war naa ëpp cinq cent milliards transfert yi boucher le trou social boo xam ne l'échec des politiques publiques de 1960 à maintenant créé na ko fii ba ménage yu bëri aussi bien zone urbaine boo moytul suñu woon émigré yi bu ñu añee duñu reer bu ñu feebaree duñu faju école du fa am teen du fa am forage du fa am kon ces émigrés là qui souvent vivent dans des conditions extrêmement difficiles mais bëgg seen réew tax ñu toog di ko muñ fii Louga loolu laa leen di ci wax jeunesse bi également que dem tukki dara newu ci yàlla mi ñu sàkk moom ci boppam moo njëkk ne tasaaroo leen ci kaw suuf ngir dem fàggu wërsëg ak ngir découvrir li nga xam ne mooy ay mbindeefu yàlla kon tukki aayul waaye da tukkee moo mën a jël ay gaal di risquer ta ndax ñu bëri quatre yi nekk tey Europe muy première émigration bi xam amul ci kenn ku jël gaal wala mu topp désert bi waaye dañu jaar fi ñu war a jaar ba yàlla yox jox leen kayit ñu tukki dem liggéeyi kon phénomène gaal ak ñoom seen léegi la xew démb rek ñu may annoncé benn gaal boo xam ne ay ndaw la yu dëkk fële Fuuta daa di traversé dem Mauritanie à partir de Mauritanie di ñuy wax noy Nouadhibou ñu jël gaal ne dañuy dem Europe waaye bañ a fekk seen gaal ga fukki bakkan ak juróom-ñaar faatu nañ fa ci condition yoo xam ne kenn xamul naka la war a métier est-ce gannaaw bu ñu rendee hommage émigré le message que je continue à lancer l'avenir de cette jeunesse ñu ngi fii ci réew mi te su ngeen teeyee tuuti te muñ ndax ku am eh, juróom ku am ñaar fukki at wala fukki at ak juróom-ñaar wala ñaar fukki at ak juróom. loolu la ngoo koy amee bay ñàkk réew mi dinañ ko defar ba mu ne toj te on va le avec cette brave jeunesse sénégalaise mais ba léegi immigré yooyu li ma leen bëgg a lancer message mooy projet bi projet bi la les sénégalais de la diaspora caaya lañ dañ cee mat sëkk ñëpp xam nañ seen taxawaay ci projet bi moo tax c'est pas le moment de céder au découragement wala ñu naan ay ñun amuñu poste réew sàngam kenn mayu fa kenn ñu naan kon dañuy seetaan déedéet réew mi ñëpp la soxla képp ku ñu fan càmbar ba gis ni ci say diplôme ak ci sa jaar-jaar réew mi soxla na la moo xam Italie nga ne moo xam Espagne wala Arabie Saoudite wala Japon daañ la woo dénk dañ la war a dénk waaye ñëpp mënuñoo nekk dans des fonctions administratives ou publiques li ëpp solo mooy réew mi baax parce que su réew mi baaxee nit di ko woo ne ko kaay jël fonction publique mu ne la bëgguma parce que chacun voudra yor ay affaire am di def ay business am ci gagné ay millions moo gën ngay dugg ci fonction publique weer wu ne ñu lay fay ay salaire yoo xam ne yàlla xam ne mu toll gëdd bi ñu jox immigré yi moo tax campagne bi directeur de campagne dafa prévoir woon benn journée boo xam ne dañuy daw dem def benn meeting à Milan nga xam ne toute la diaspora dañuy ñëw daje foofu ñu def un giga meeting de la diaspora xamaguñu ndax dinañ ko mën tenir ou pas mais liñ ci bëgg a wane rek mooy importance biñu jox diaspora ci ñu ñëw liggéey ci réew mi kon à cette diaspora là la ñu war def ci li ñu tuddee la banque de la diaspora nga xam ne lu bëri ci nit ñi dajale di ko envoyé ci réew mi muy dugg ci ay poos mun nañ ko dajale tey dugal ko ci benn banque boo xam ne day financer le développement te kenn ku nekk ci ñoom doon ci actionnaire ñu utal jigéen jigéen ñi liggéey utal góor ñi liggéey lool di jurat xaalis ñoom ñu ciy jël seen i part de dividende loolu yaakaar nañ leen ci bu baax waaye tamit ba léegi ci émigré yooyu li nga xam ne bëgg nañ ko lancer parce que yéen a ngi dégg bor bi bor bi bor bi waaye mën nañu créer des yoo xam ne lenn ci li ñuy soxla pour mottali financement bi le temps que ñu def les réformes fiscales le temps que ñu def ñu renégocier les contrats lenn ñuy soxla ci xaalis mot jóge ci poche waa réew mi moo tax li ñu waxoon ni dañuy def ay diaspora bond da ngay dégg ñu naan euro bond man ma ñëw ñu ne nañ ko tuddeewaat les patriotes bond parce que warul yem ci diaspora bi waaye kenn ku ne war naa mun a am lu mu jël ne lii dugal naa ko muy contribution te muy lu lay jural ëllëg loolu ñu ngi ciy xaar diaspora bu baax waaye deuxième point bi ma bëgg a mooy li nga xam ne mooy solo secteur privé dans la vision 2050 gis nga réew secteur privé mooy doxal économie réew secteur privé mooy créer entreprise secteur privé mooy créer emploi suñ demee ci réew ba li ëpp ci emploi yi état moo koy créer loolu mooy réew moomu fayit na te loolu mooy problème mu Sénégal secteur privé boobu nag nga xam ne dañ koo jox importance ba soo seetee ci li ñu manqué ci financement ci dix-huit milliards yi ñu soxla pour def le programme vision deux mille cinquante complément de financement bi ñu soxla niñ ko répartir ñu ngi xaar 70 pour cent yi ci société privée ci secteur privé et seulement pour cent ci état bi loolu day wone importance biñ ñu jox secteur privé li tax ma waxee ko fii nag ci Louga mooy fii Louga Louga dafa jur li nga xam ne mooy li ñu gën a ràññee ci secteur privé du Sénégal di Sénégal ba léegi mooy gi Jiili Mbay nga xam ne tey nga xam ne tey yàlla moomee ba léegi lu mu tuuti tuuti war na def vingt cinq ans wala trente ans waaye kenn mënagul lim homme d'affaires bu ko toll fii moo tax bu may wax ci secteur privé pour jox ko un exemple à tout le secteur privé sénégalais ñu xam ne secteur privé li ko jiitu mooy patriotisme gannaaw boo demee faggu ba yàlla jox la gannaaw bu la état bi jàppalee ba yàlla jox la nga réinvestir ci réew mi te commencé ko fi nga dëkk loolu mooy li ñuy wax secteur privé patriotique kon secteur privé boobu fii laa koy waxee tudd ci Djily Mbaye tudd ci Ndiouga Kébé tudd ci keneen ak keneen mu doon exemple yéen tam pour yéen ci jeunesse si ndax ñoom alaaji Djily Mbaye jëliñu daal génn réew mi ne dem nañ liggéey bitim réew am li ñu am kon nañu xam ni gëm suñu bopp gëm projet président Bassirou Diomaye Faye gëm li ñuy doxal ci gouvernement mooy créer li ñu soxla te réew mu sa développé looloo ko développé mosoo gis réew moo xam ne jeunesse su réew mi yëpp fàq nañu dem ñu ne réew moomu développé na amul fenn ñetteel bi ma bëgg a fii nag mooy lu jëm ci mbay mi parce que Louga ci Louga ville Louga dafa am la Louga rural mooy nekk ci biir nga xam ne ña nga bay fi la ñuy bayee lu ëpp ci soble fi la ñuy bayee lu ëpp ci ñebe ak yeneen ak yeneen ñu wax lu gàtt ci loolu ndax nit ñi suñu adversaire yi nga xam ne ñoom seen politique yëpp mooy sosal ñu sosal Ousmane ko sosal président Diomaye def li ñuy wax désinformation dégg naa ñoom dañuy dugg ci àll bi dem booru bootu buñ demee foofu ne baykat yi état bi dootu leen jox jiw ñu leen protéger pour ngeen mën a jaay soble si ma bëgg a wax ñëpp ni bi ci gën a gàtt mooy suñu dara juróomi at yi ñu dëgmal président de la république Sénégal ñu ngi tudd son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye lan la yàlla tudd kon ñi ñuy wër di leen fekk fi ñu toog moo xam béykat nga wala nappkat nga wala transporteur nga wala koo mënti doon di la wax yoo xam ne ay waxu daanu sare ko war nga xam ni ki nga xam ne moom ngay jëtlante ci juróom at yi ni mu gën a gàtt gàtt gàtt ci juróom at yi incha rabbi kooku mooy président Bassirou Diomaye nit nag mënuñu la fal nga xool secteur yi ëpp solo ci réew mi ne dama leen di dumóoyu du ma leen faale waaye ñun programme bi ci am gëm naa ne kenn mosu ko ci jiw bi passé rek dañu génne 10 milliards ñi nga xam ne ñooy yi joxe jiw yooyu ñu fay leen ko mais képp kuy bay fi mu nii moo xam soble ngay bay wala pomme wala produit maraîchage yi di nga am subvention di nga am jiw di nga am engrais waaye li gën doon problème fii mooy nit ñi bu bayee ba pare amuñu fu ñu amuñu fu conservé bu ko defee mbay mi day yàqu ci àll bi am nañu un ambitieux programme pour développer des chaînes de conservation ba soble dootul yàqu ci réew mi mais ensuite ñu encadrer ko par une bonne politique de protection ba nga xam ne tant que li nga xam ne bay nañ ko fii jaay ñu ko ba mu jeex du ñu ubbi frontières yi pour gars yi di fi andi soble mu ñëw concurrencer soble bi fi nekk. wala ñuy ay légumes mu ñëw doon bi fi mais am na un programme de communication parce que Sénégalais yi bu ñu leen wax consommer local ñoom du ñu comprendre ñu wax boo waxee ceeb bi suñu jigéen ñi nga xam ne léegi ngeen baal ma nag waaye dañoo xaw a taayal ci togg bi dañu naan riz local bi dafa naqaree togg mais dafa am benn proverbe français boo xam ne waa ji nee na je préfère marcher un kilomètre. acheter un produit français que d'acheter un produit chinois au bas de mon immeuble loolu mooy patriotisme nit ñi dañ naan soble bii soble bi ñu importé moo ko gën wala ceeb bi ceeb bi ñu importé gën a baax mais suñu commencé di jënd soble bi di jënd ceeb bi loolu mooy permettre baykat bi gëm ak gën a am doole ba gën a mën a améliorer moom ni muy defaree soble ba bientôt on aura benn soble boo xam ne c'est day doon soble de meilleure qualité kon suñu jàppalewul suñu béykat yi ñu préféré jënd soble bu jógee ci biti soble boo jënd bu jógee ci biti yaa ngi enrichir un paysan de Bangladesh de Chine de France wala de Hollande mais yaa ngi appauvrir sa paysan noonu lañ ko war defee ci li ñuy sol ci yére yi nit mun na sol veste sax veste mais veste bi mun nga ko ñawlu fii man de veste bi moo sol fii lañ ko ñawloo montre moo takk fii lañ ko defaree chemise bu ma sol fii lañ ko ñëwee mais noonu ngay jàppalee suñu producteurs yi ñu ngi ci semaine de l'artisanat wala la mois de l'artisanat nañu jàppale suñu producteurs yi loolu bu ñu ko doon def léegi ñu may suñu producteurs yi doole ñoom ñu gën a am capital gën a jënd ay machines yu baax gën a defaraat seen bopp c'est comme ça qu'on construit une économie bu may daanelee nag seen Teranga TV c'est vous c'est partout dans le li nga xam ne moom ngay jëflanteel ci juróom at lu mu gën a gàtt gàtt gàtt juróom at yi incha allah rabbi kooku mooy président Bassirou Diomaye nit nag mënuñu la fal nga xool secteur yi ëpp solo ci réew mi nga dama leen di du mooyu du ma leen ay ñun programme mooy yéen dégg ngeen ci suñu programme ñu wax leen loo xam ne lu am solo la nawet ak noor te réew mënul bay nawet ak noor mënul atteindre autosuffisance waxuma laa mu day exporter moo tax président Diomaye bi mu ñëwee bokk na ci programme yi njëkk ci mooy li ngeen tuddee les autoroutes de l'eau li ngeen daan dégg mooy autoroute yi nga xam ne oto yeeg oto yeeg camion yeeg ñoom seen ñoo ciy daw léeg-léegi lu mel noonu la def waaye jëleen ndox mi Lac de Guiers ci boppam jëleen ndox mi ci fleuve Sénégal ñu daal def autoroute de l'eau boo xam ne uniquement pour ak càmm bi loolu bokkul ak le projet du grand transfert d'eau bi nga xam ne lancé nañ ko ba pare mu war a jële ndox mi fii ba bi nga xam ne moo am problème ndox tey te li fa nekk ci Sénégal lool muy Dakar muy Touba muy Mbour lu mën faa yóbbu ndox de qualité waaye li ma bëgg a dalal xelu suñu mbokk waa Kër Momar Sarr ak li ko wër ndax gën a jooytu. ni ci ñoom la jëlee ndox te ñoom amuñu ndox ma wax leen ne ci projet yi ñuy lancé balaa ndox di egg Louga wala muy egg Touba wala muy egg Ndakaaru wala muy egg Mbuur waa kër Momar Sarr ñooy njëkk a jot seen wàll ci ndox mi loolu moom la ñu njëkk a inscrire ci projet bi parce que ñun développement équitable la ñu wax mooy Sénégalais ñu tolloole leen ba kenn ku ne mën gis sa bopp dernier kàddu bi nag mooy wax nañ lu bëri lu jëm ci suuf nee nañu Louga am na problème suuf te suuf si ñu ngi wax li may wax problème mu suuf ay 70 hectares fii ay nangam fële lenn moom naa ci dalal seen xel. fi ne nii Dakar la ñu woon jàmbar nañu Dakar ba gis li fa xew ci li ñuy wax prévarication foncière continué nañ ko actuellement dugg ci Diamniadio ak les pôles am na leen yoo xam ne waa jële nekk Ndar commencé woon na ko. waaye arrêté nañ ko fépp ci Sénégal foo xam ne nit def na fa njuuj njaaj ci suuf su dee guuxool dina ko goxi ndax moom man maa la jox assurance boobu ñu ngi leen di di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah Thank you.